ala millati rasulu manhajil qadim asalaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakatu ginnaaw bu ñu ziyaare kilifa gi cheikh mouhamadul muntaqa ginnaaw bu ñu ziyaare sëriñ abbas ibnu cheikh ibrahim ak njabootu borom daaru gépp jaar sëriñ moustapha hafsa suñu wasila di ziar Serigne Moustapha Saleh ak njabootu tedd ki yëpp di ziar itam ñi nga xam ne ñoo amee liggéey bi ci waajtaayu màggal gi mën nañu ko tàmbalee ca ndax itam hiérarchie dafay am kurus de am père bu jiitu am yu ca topp ba ca ba ca mujj dëgg la bu ñu tuddee sëriñ Muntaqa mel na ni tudd nañ njabootu ku tedd ki yëpp bu ñu tuddee sëriñ Abbas bu Cheikh Ibrahima Fati mel na ni tudd nañu njabootu borom daaru yëpp mel na ni tudd nañu yoonu murid yëpp ndax diggante ku tedd kee cenn waaw di ziar siyoox yëpp ko tàmbalee ci sëriñ si siidi du Serigne Abdul Ahadi ba ca ka ca mujj hmm. ni ma ko waxee léegi di ziar ñi nga xamante ni bii eh, ñun ñu nekkul fa fa ca wetu xilaafa ga ñoon fa nekkal ñun ñëpp da ko ca tàmbalee ci sëriñ Moussa ba ca ka ca gën a tuuti ñi amee liggéey bi itam di ko tàmbalee ci Cheikh Mouhamadul Bachir ba ci Cheikh Abdou ba ci sëriñ Abo mii toog mi leen fi toogal ñoom ñëpp daal waaw ah, ma ne sulee na lim kurus la e waajtaayu màggal gi ñépp xam nañ ni ba ko boroom diglee bàyyi fi ñëpp fi bàyyi saa yu jotee ku ko fi nekkal ku nekk dangay fàttali da ngay sof ba ko ku tëdd ki sosee ba noppi te ba mu koy sos moom wax na ni fa mu demoon di liggéeyal boroomam ca exil ba fa la ko boromam xamale woon ni dina dellusi ci ab dëkkam te bu dellusee ci ab dëkkam yitam dina ko fi amalal ak cant xawaltu shukrallaahi fii turaabi fii bi ak sharahali sadri lada la wax sharaha li sadri lada rujui li baladi wasaani ne an juuxe dëgg la foofu dunu fi sori waaye li waral màggal gi daal ñëpp xam nañ ko mooy sant la ko boromam ni ko sëñ bi waxee ñëpp dégg nañ ko ma bëgg bala may jàll foofu rekk nu wax ci sëriñ bi tuuti sëriñ Muntaqa te yàlla rekk tax E, képp koo xamante ne bi yaa ngi seetantal te dëggu xam ne bu dul woon xalifa itam nekk na kilifa gu mat kilifa critères yi nga xam ne moom lañuy soxla ci ab jullit ci kilifa yépp dafa daje ci moom bu ci nekk de ci ak géeju bu ci nekk océan la ca waaye danga koy tàmbalee ci nag ginnaaw boo ko seedeelee seey gi mu seey ci ku tedd ki ba noppi humilité bi modestie bi ni mu waxee nu ñëpp ko dégg nee na ñaara fi nekk mbokki boppam yi ak mbokki talib bii dégg la mu ca wax waaw dégg ngeen ñun ñëpp ko déggandoo ba tax na ñëpp la yaraat ñëpp la tegaat ci yoon ñëpp la jàngal lu di ay teggin ñëpp lay jàngal ñëpp la jàngal lu di ma ñëpp la jàngal lu di wàcce sa bopp toroxlu delloo lépp ku tedd gi waate ah, te nekk ca kaw nag nekk ca zalun ni ma ko waxee woon noonu nekk ci daalun kon nañu dañuy ñaan rek mu yàgg fi te am na loo xam ni it mënu ko ñàkk ba ñuy junj dama ne woon damay bàyyi ba ci fan yi ma wax ko muy ki nga xam ne moo jiite réew mi te nu dégg façon bi mu ko sante te dara waralu ko lu dul rek li xew ci àdduna bi ba noppi te teewul mu xam ni xew-xew bii amul fenn ki ko moom boroom xew-xew bi amul fenn dëkkam ab dëkkam amul fenn waaw moom chef d'état bi di président Macky moom ku jara sargal la ku jara félicité la wax dëgg yàlla ndax àdduna bi kon ne gis na li fi xew ci événement boo xam ne ay millions de personnes yoo fa war a daje kooku moom chef d'état bu osé nangu ko ci réew ma nga jiite kooku moom wax dëgg yàlla dafa jar sargal dafa jar jàppale loolu nag sama wax waxi bopp la ndax lu ma gëm la dama ne woon du ma wax léegi damay bàyyi ba juróom-ñeenti fan yi mat waaye safar ak weer yi dul safar sax ndem bis bu nekk la ca diw yiw boromam jox na ko guddi gu nekk la ca di yiw boromam jox na ko moo xam ci bis yi la moo xam ci weer yi moo xam ci at yi moo xam ci temps yi moo xam ci saison yi waaw lépp daal dafa daje ci moom ku tedd ji bu ko defee mu des lan mooy bi dimanche incha allah ba ma war a leeral xale yi ni ñu war a màggale ci yar ak i teggin ak espace yi nga xam ne respecte mesure de protection yi eh, yi nga xamante ne bii jël nañ ko te ñëpp di ko appliquer fii mu toll nii eh, dinaa ci waxtaan ak xale yi façon bi ñu war a màggale ren ndax tant amul ay dajaloo di tant amul waaw kon nag espace yi un mètre ci xale yi ci ay sàppe eh, niwal malaayikatu safan safa ndax ñun nag diwaanu sirkul jaawir fi axbaar yi saraayir noo waxoon radiallahu anhu Cheikh Saliou danoo jàppi suñuy bopp soldaar yi Serigne Touba jàppi suñuy bopp ni ni ña demoon Badar moo tax lii nuru ay sàppe ñaare ma koy def loo xale yi waaye nag ñu war koo espacé nag waaw diggante bu nekk nekk un mètre waaw dëgg la masque moom bu naaj yu tàngee dina metti waaye nag dafa laaj rek stratégie nii ma def nii bi may wax damaa dindi masque bi sama masque nag moom no comment waaw te ñun ñëpp nu ñaan sëriñ bi sëriñ Mountakha mu yàgg fi loolu te wér ndax itam sooy na ñëpp nag wasalaamun minallaahi aleykum wa rahmatulah